wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala mbokki muslix tv yi ñu ngi leen di nuyu di leen ñaanal jàmm di ko ñaanal ñi nga xam ne ñoo leen di topp yépp di gis seen liggéey di ko suivre di ko rafetlu bu baax alhamdulillah saa see la seet yow ci tolluwaay jamono li nga xam ne coronavirus daanaka lëmbe na àdduna bi ci àdduna bi la bokk oustaz fan nga jàngatee xew-xew bi. alhamdulilah <coughs> jullit lu mën a xew rek dafay sant borom subhanahu wa taala su fekkee ne xéewal gu mu am la sant yàlla. mu nekk yiw ci moom comme ni ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxee bu fekkee ne ab nattu la mu muñ itam mu nekk yiw ci moom kon léppam mbaax la léppam yiw la léppam jàmm la ndax léppam da koy delloo borom bi subhaanahu wa taala qul lan yusibana illa ma kataba allahu lana ñu ko defee dañoo jàpp ne coronavirus bii nii ci natt yi borom bi subhaanahu wa taala di tege te àdduna di kërug natt mu teg ko àdduna bi ci la bokk ak coowuleeg masdar bi fan la maanaam fan la jóge ndax euh, siin gi ñu ko njëkk a nemmee ko fa la jógee wala meneen réew la jóge ñëw fa wala borom bi subhanahu wa ci coobare moo ko wàccee ngir teg jaam yi lim leen bëgg a teg ala kulli xaalin yàlla lu mu tànn def ko rek mooy li gën moo xam xam nañu wala xamuñu ndax du def lu ne du def dara lu dul li xikma ndax moom mooy alxakim kon lu mu def rekk am na lu tax mu def ko ala kulli xaalin yëg nañu ne lu nu mel nii xëyandoor tiitlu àddina bi yépp yombul loolu moom moom lañuy ñuy njëkk seetlu fi mu déparé ak dox bu gaaw bi mu dox ba agsi ci sunu réew yi ñu ngi ñaan borom bi subhanahu wa taala mu teggil ñu nattu bi nga xam ne daf ñu koo teg waaye nattu tam su ñëwee dañ koy jàngatee mooy doomu aadama yi def nañ lu tax yàlla teg leen nattu ma asaabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa yaafu an kasiir la yàlla wax lu leen dal ci ay musiba yéen ko fàggu de waaw waaye tey it sax yàlla day jéggal lu bari waxaat ñu zahara alfasadu fi lbarri walbaxri bima kasabat aydi nnaas li yuziqahum bad allati amilu laallahum yarjiun waaw eh, yàqute feeñ na ci jéere ji ak géej gi loolu yépp nit ñi ñoo ko def boo xoolee at yu mujj yi àdduna bi doomu aadama yi lëmbe nañ ko ci ay caaxaan ci ay mbon ci ay xeetu néewal nit doole néewal population yi doole guerre yi bari na réew yu bari amatuñu jàmm euh, seeni population ñu ngi daw di génn léeg-léeg sax fu ñu génnee fu ñu làqute leen ay nit ñoo xam ne ñu ngi doon dund seen jàmm léegi ci ay tentes la ñuy dund partout ci monde bi réew yu bëri di leen rejeté nangul nanguwuñ leen recevoir suñu réew yi nger gi corruption bi ni fi mel injustice bi ni mu fi mel ñàkk diine gi ni mu fi mel jeunesse bi ñu leen di jëmee ci euh, mbiru àdduna di leen corrompre ci xaalis di yàq seen jikko yi di yàq seen diine Euh, nit ñi nga xam ne ñoo waroon taxaw nitu diine kenn ku ci nekk diine gi nga jël ko def ko muy sa fond de commerce woote yi bari na ku ci ne am sa bésu bopp ngir dajale xaalis ngir luñ la jox ngir am koom nga xam ne diine ci boppam dañ ko seddoo fi mu nekk def ko ay pàcc daanaka ñi ko seq mënatuñoo wax way politique yi dara kenn ku ci ne ab gàttu nga yor rek di ko seddoo kon ay valeur dafa ñàkk ci àdduna bi lu nu mel nag su amee euh, ñuy tasaareek mbon di tasaaru ngóor jigéen riba di ko lekk ku man sa morom duma nit ñi ay principe toppatootuñ ko diine dañ koo teg fële borom bi subhanahu wa taala addunaam bi moomatu ko ñu génne ci loxoom ba mu set jàpp ne mën nañ koo doxal ñun rek yàlla du ci bokk bu boobaa nag moom mi nga xam ne moom àddunaam saa yu ko neexee rek mu wane ne maa ko moom yónnee ñu am mbindeef mu tuuti moo xam ne mënuñ koo teg bët ma waxaat ak fu mën a jógee ak lu nit maa nu ko nuñ ko mën a interpréter mënuñu koo teg bët mu jaaxal ñépp fi mu ne réew yi ëpp doole ñoo gën a jaaxle feebar bi ñoom la gën a sonal seen hôpitaux yi fees na nit ñi amatuñu sax ay lal yu ñu tëdd ci hôpital yi boo xoolee image yi ci ay sièges lañ leen teg médecin yi ko wax mu jaaxle bët bu bés bu nekk am gox bu yëggati kàddu ne xam nañ lu koy faj turu nañ garabam turu nañ vaccin am loolu yëpp kenn concrétiser gu ci dara ay woote la rek ay wax la rek yoo xam ne Eh, kenn xamagul nu mu demee nit ñi ànd ci àdduna bi tey jaamukaay yàlla yi gën a mag ñu koy tëj ngir retiré wu dellu ci seen kër yi réew yu bari mënatuñoo génn suñu réew yi boo moytuwul tam ñu ngi versé wu jëm ci lool ngir loolu yépp bañ feebar bi tas kon mbir mi mooy dëgg-dëgg doy na waar nattu bi rëy na coono bi rëy na coono bi metti na ah ci cadre bu nu mel nii ci kàddu diine li ñu mën a wax mooy nit ñi ba léegi gannaaw ñu ngi dund am nañu sansu tuub dellu seen borom subhaanahu wa yàlla mu ngi woo nit ñi ci tuub yàlla dina amanu tuubu ilallahi tawbatan nasuha tuub tuub gu dëggu gu wér ànd ak rëccu dellu suñu borom subhanahu wa taala kenn ku ci nekk jàpp ne lii euh, dal àdduna bi mbaadu man samay bàkkaar moo ko waral ak ku mën a doon tub say bàkkaar mu nekk lu dëggu ci yow jéggul sa borom subhanahu wa taala euh, jéem a nekk dabaatal jëf-jëf yu baax tuub ak jéggul yàlla dafay ànd ak islaax defar xool lan nga yàqoon nga defar ko xool koo yàqoon nga defar ko xool foo màbboon nga tabax ko xool loo sànni woon sa diine nga jëraat ko waaw xool bakkaar yi nga doon def nga bàyyi ko di dootoo ci dellu muy lu dëggu ci yow waaye ah, di def lu baax nit ñi nañu dellu seen borom subhaanahu ci di saraxe yàlla dafa bokk ci liy fay am meram sarax saraxe dañu bari lu ñu tudd yàlla fu ñu toll yonent bi sallallahu jàngal nañu ñaanu yonent yàlla yunus ka gannaaw bu ko alquran tuddee sax nag wa dhannuuni id dahaba mughadiban fa zanna an lan naqdira alayhi fa naada fi zulumaati an laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min alzalimin ab yonent bu yàlla tegoon nattu euh, waaye mu sax ci baat yooyu yàlla ne fastajabnaa lahu wa najjanaahu min alxammi man yàlla mu màgg mi ma nangul ko ñaanam musal ko teggil ko tiis wa mu nekkoon yàlla teg ci wax wa kadalika nunjil muminin nii lay doxalee ak ñi gëm yàlla musal leen saa soo xamee ne itam dugg nañ ci ay jafe-jafe yéen tout ça sama wax nañu ne lu ñu dal muy tiis muy naqar muy balaa muy pandémie bi ñuy wax muy pest ak lu mën a doon nit ki su jëlee laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min az-zalimin wettalikoo ko tuubee ko ci borom subhaanahu wa taala màggal yàlla wéetal borom bi subhaanahu wa ndax baat yooyu jéggalu la màggal borom bi subhaanahu wa taala la waaye delloo ci tawxiid wéetal borom bi subhaanahu wa taala la ndax yooyu suñ ko defee rek insha allahu taala xam maanaa yi ñu tudd def ko ci suñuy xol sax ci borom bi dina yëkkati insha allahu taala lii nga xam ne mooy nattu bi mu bi mu ñu teg jël lu mel ni baatu subhanallah walhamdulillah wa laa akbar sax ci di ko tudd di ko jaamoo borom bi subhanahu wa taala waaye xasbunallah wa ni'mal wakiil doyloo yàlla di wax baat yooyu mën naa am la yàlla waxoon dal ñu fanqalabu bi ni'mati min allahi wa fadlin lam yamsashum suu waaw yàlla defal ñu xéewal teggil ñu ñaawteef teggil ñu nattu teggil ñu feebar yi nga xam ne moom moo dal tey ci suñu kaw loolu euh, lu ñu war a bàyyi xel la di julli ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam fu ñu toll bëri lu ñu julli ci moom yaa alladina amanu sallu alayhi wa sallimu tasliman te ku julli ci moom yàlla julli ci yow fukki yoon boo julee benn yoon soo ëppalee mu ëppal kon loolu euh, mën naa tax yàlla mi nga xam ne mooy nangul jaam yi bu fekkee bu julli ci yonent yàlla Muhammad mu julli ci yow sotti la yërmaaneem sotti la xéewalam sotti la Euh, sécurité am sotti la ak dal kon jar na bëri di jullil fu ñu toll ci moom waaw di jéggal suñuy bàkkaat di wax astaxfirullah lu bëree bëree bëree bëri di jàng alquran lu bëree bëree bëree bëri euh, sunu kër yi nga xam ne fi mu ne ci la ñu nekk nañu ko soppi ay école nañ ko soppi ay daara soppi ko ay jàkka di fi jàng alquran di fi jàng borom bi subhanahu wa di fi naafi la guddi di fi naafi la guddi waaw walladina yabituuna li rabbihim sujjadan wa qiyaama xam nañ ne borom bi subhaanahu wa am na ay mawaasim maanaam ay jamono yoo xam ne ci lay ubbi ay buntam di ci nangul jaam yi seeni ñaan bokk na ci waxtu yooyu euh, li nga xam ne mooy guddi gi suñ demee ba mu xóot ba nekk ci dernier tiers bi di ko commencé trois trois heures et demi jëm fi ñuy salaatoo nit ñi war a dagg seeni nelaw jóg di jaamu seen borom subhanahu wa taala di ko def ni ko yonent bi sam doon defee na ko saxaaba yi doon defee ne wa min xalila min al-layli maa yahjaun tuuti wàññi nelaw yi jëm ci borom bi subhanahu wa taala di ko jaamu ci guddi gi waaw yàlla mu ngi tàgg ñi nga xam ne dañuy jaamu yàlla ci guddi yi dañu bokk ci ñooña dañu fexe bokk ci ñooña bu ko defee waxtu woowu noonu noonu boo tàllee sa borom subhanahu wa loxo ñaan ko àdduna bi yépp buñ toogoon ba heure boobu ñépp jublu ci yàlla talal ko loxo ñaan ko toroxlu tuub dellu ci moom dangay ngay daw jëm ci moom mu teggil la li nga xam ne moom nga tiit teggil li nga xam ne moom nga moom nga ragal kon loolu dañ ko war a bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax mbir mi daal amul lu koy sotti lu daw jëm ci borom bi subhanahu fa firru ilallah daw jëm ci borom bi subhanahu wa taala su ñu ko defee rek yàlla dal di nanguñu gàttanduñu taf ñu ci boppam incha allahu ta'ala euh, teggil ñu li nga xam ne moom mooy li ñu dal waaw yëkkati suñuy loxo nag di ko ñaan fu ñu toll di ko ñaan di ko ñaan di ko ñaan moom mi nga xam ne mooy nangul ñaan koo xam ne dangaa jàq dangaa jaaxle dangaa tiit dangaa loru amatu fu jëm wa man yujibul mutarra ida daa wa yaksifu suu ki nga xam ne mooy yëngi nangul ñaan ki nga xam ne moo loru di ko teggil ay ay tiis ay naqar ay njàqare ay feebar moom la kon nañ daw ci moom wa isa saalaka ibadi anni fa inni qarib ujibu daawata daa ida daan yàlla ku jege la boo ko ñaanee mu may la loolu la ñuy wax ci alquran nañu dellu ci moom euh, ñaan ko nañ dellu ci moom ñaam ñaan ko bu baax a baax a baax a baax walillahi al asmaul husna fad'uhu biha waaye ci ñaan itam ñu bàyyi xel ne moom lañuy ñuy ñaan da dégg kenn ku ne wax lu ne yooyu nañ ko teg fële fi mu ne nekkuñu ci jamonoy naxaate nekkuñ ci jamonoy caaxaan dañoo nekk ci jamonoy dellu ci borom bi subhanahu wa taala lu nit ki bari bari kaf lu nit ki bari bari caaxaan lu nit ki ñàkk-ñàkk e, xel war na xam ne jamono jii du jamonoy woo nit ñi leen nax du jamonoy wax loo xamut